Sénégal dafa am gan gu mag bu États-Unis d'Amérique ñu koy wax euh, madame Paloma Adams Allen moom mooy administratrice adjointe USAID USAID nag mooy euh, mooy organisme bi nga xam ne foofu la États-Unis di jaarale coopération mag réew moom nag gan gu mag la parce que rang bi mu am dëkkam rangu ministre la te ñu xamal ko ne ko Sénégal at États-Unis jaarale ko ci USAID seen coopération dafa yàgg mu ngi commencé 1961 accord bi njëkk a signé ñu ngi ko signé Washington le 13 mai 61 boobu ba léegi. dara ñaawu ci ñuy continuer di jàppale Sénégal bi ñu xoolee nag coopération bi ñu am ak ñoom at yii rek passé deux mille vingt et ba deux mille vingt six programme bi nga xam ne USAID dina ko financer Sénégal mu ngi toll ci six cent millions de dollars maanaam trois cent vingt cinq milliards de francs CFA. yoo xam ne USAID dina ko dugal ci réew mi secteur yi mu yi muy financé nag secteur yu am solo la maanaam daanaka xaaj bi yëpp ci santé ak éducation la jëm yeneen yi mu ngi jëm ci gouvernance ak démocratie tey nag projet bi ñuy signé nga xam ne dañ ko war a exécuter ci santé la bokk maanaam mu ngi toll ci trente et un millions de dollars maanaam dix-huit milliards huit cent millions de francais CFA yoo xam ne ñu ngi ko jëmalee benn projet santé boo xam ne dafay wàññi dafay wàññi taux de mortalité yi nga xam ne dañ ko ràññee ci maanaam xale yi juddu maanaam aussi programme bi ni financé sibiru da koy xeex sibiru ba nga xam ne risque yi am yooyu yëpp dafay gën a fexe mu dooleel assurance maladie communautaire yi nga xam ne président ma ci sàll bi mu ñëwee ci nguur bi mu ñëwee jël réew mi ba léegi daf ko initier maanaam couverture maladie universelle léegi nag ñun bu ñu xoolee loolu yëpp dañuy gis ne USAID moom dafay jàppale plan Sénégal émergent bu baax parce que plan Sénégal émergent bi nga xam ne 2014 2035 la bu ñu xoolee ci axe stratégique yi ñu yi ñu ci def USAID ci axe 2 bi lay gën a intervenir ak axe 3 bi axe 2 bi maanaam. wàllu santé éducation ak axe 3 bi wàllu gouvernance loolu gis nañ ne USAID mu ngi ci di dimbale bu baax a baax USAID nag dafa dem ba wóolu gouvernement bi ba nga xam ne xaalisam da ko koy daf ko koy jox daanaka directement dafa am initiative bu bees bu ñu naan gouvernement à gouvernement xam nga bu njëkk mun ngay financer gouvernement di ko jaarale feneen waaye bii initiative boo xam ne la dafay financer directement gouvernement bi lu am solo la lu bees la loo xam ne USAID mu ngi koy def ak gouvernement bi ba nga xam ne day tax ñu gën a am efficacité gën a am efficience maanaam yaxanal ci ni ñuy exécuter projet yi nga xam ne USAID ak gouvernement bi ñoo ko tënk léegi nag projet bi am na solo torop wax nañ ne aussi am na yeneen projet yoo xam ne USAID mu ngi koy financer ci réew mi ci wàllu éducation ak yooyu yooyu aussi wax nañ ci benn projet bu am solo boo xam ne dafay jàngale xale yi ñu mën a lire loolu am na solo torop programme bi nag bu ñu xoolee USAID programme bu bees bi dafay dem ba deux mille vingt six maanaam deux mille vingt et un ba deux mille vingt six ci biir loolu le programme bi ci lañ koy exécuter léegi nag euh, bi may jeexal sama kàddu aussi gërëm naa USAID euh, ba pare gërëm États-Unis d'Amérique ci seen candidat bi nga xam ne ñu koy wax monsieur Ajay Banga bi nga xam ne moom lañ proposé woon mu pour mu yore banque mondiale bi ngeen di dégg te yàlla def ñu élire ko brillamment le 3 mais dernier Sénégal nag vraiment fier na parce que candidature Banga boobu lu doon soutenir léegi ma yóbbante leen nag ne leen vraiment ñu ngi koy félicité te xam ne fii fan yu néew gis ngeen semaine yële ñu génn programme bi ñu signé woon ak Fonds monétaire international Banque mondiale aussi mu ngi liggéey ak ñu liggéey bu am solo ci réew mi ma ne leen nag xam naa ne bu ñuy defaat réunion annuel yi nga xam ne banque mondiale ak FMI dinañ ko def octobre lay doon ci Marrakech ñun gouvernement du Sénégal dinañ am ci daje boo xam ne dinañ ko daje ci président groupe banque mondiale bu bees boobu te nekk doomi Amérique loolu laa bëggoon a résumer rek ci discours biñ fi wax ñu leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay